kii di Aby Ndour di rakk ci Youssou Ndour daal dinay déggaat alxayri moom moomee nag doon na célébré mariage ci samedi bi mu nga kontaan ba dee rek te naan aawalaay wuyoo boroom këram di wuyoo ci turu Babacar Laye Makhtar ca boobule mariage sax nag ay mbokkam ak ay xaritam nag ñu nga woon foofe daal di teewee li nga xamante ne si moo di maye bi wante magam ji di Youssou Ndour yëkkati na ay kàddu cant ko daal di koy gërëm wante daal na koy ñaax yépp ko di ko xamal ni ko nag sëyam bii dee rekk moo ko ci génnee ñu ngi koy ñaanal nag yàlla na doon sëy bi gën ci moom te barkeel la.